Toujours dans votre acte du jour de ce 23 septembre 2024. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, j'étais en train de dire 22 septembre, mais aujourd'hui, on est le 23 septembre 2024. dañ fay jógee dem seeti ki nga xamante ni mooy Alassane Sall République des valeurs lépp loo xamante ni yaakaar na comme beaucoup de sénégalais mooy King nga xamante ni daal premier ministre bi jamono ji dafa mel ni moom mooy diriger li nga Sénégal moom midi di président du parti République des valeurs de Tierno Alassane Sall moo joxe Khalatam jëmale ko qui ci polémique bi nga xamante ni dafa concerner lii di port versimentaire, jëmale ko ci établissement scolaire yi ci première temps lépp loo xamante ni daal mi ngi ci abstenir daal di ci prononcé jëmale ko ci chronique euh, polémique bi nga xamanteni dal lu ko waral moy port vestimentaire ci école yi nga xamanteni moy catholique yi nepp lu mu ko yakare comme sénégalais yu bari nuñ ko yaakaare dafa melni premier ministre bi dal mo bëgg mettre à profit jëmele ko dal ci ay vacances scolaires yo xamanteni au lieu ko ñu indi li nga xamanteni moy dialogue jëmele ko ci responsabilité établissement yi pour résoudre définitivement définitivement li di ñak déggo ginnaw nak bi nga xamanteni amul ben yoon bo xamanteni man nañ ci survenir muy doon ay récentes déclarations yoo xamante ni moom mii di premier ministre yëgee na ko ci benn réaction boo xamante ni bu présidible la jaarale ko ci conseil national bu layka ginnaaw bi ñu bàyyee bépp crainte jaarale ko ci escalade ci suñu réew évidemment soxlaw ñu benn yoon lii nga xamante ni daal maanaam mooy benn crise boo xamante ni dafay sukkandiku daal di attiser les plus démons indi lii nga xamante ni daal mooy division jaarale ko daal ci témoigner ay discussions yoo xamante ni dafa sukkandiku ci réseaux sociaux yi ba noppi doon ay accélérateur moderne yoo xamante ni haine lay indi ba noppi mu daal di encombré li di état bi lu wara garantir lepp lo xamanteni moy patrimoine bi nga xamanteni mo gëna précieux ba nopi dal di koy fragiliser muy unité bo xamanteni suñu sukkandikoo ci concorde national bi les lo xamanteni dal jël nako ci ay mesures yu nécessaire dafa jëm pour ñu éviter dal di sukkandiku ci yu melni nii Thierno Alassane na ci dal que lepp lo xamanteni dal def nako ci poste bi tay gisul ben intérêt ñu daal di fàttaliku que lépp loo xamante ne dafa soxal li di acculation jëmale ko dal ci li nga xamanteni moy ay petite mésententes yoo xamante du indi dara lu juddu ay crise profonde daldi di dévastatrice ba noppi sukkandiku ci sous région bi ginnaw bu mu ko martelé mi ngi fàttaliku que bép autorité lepp lo xamanteni war nako ko privilégié dafa wara don li nga xamanteni moy waxtan di dialogue don na voix bi nga xamanteni mo moo permettre ñu daal di dissiper lepp lo xamanteni dal daal ñàkk pour que ñu mën trouver li nga xamanteni moy solution jëmee ko dal ci ay préoccupations yo xamanteni ay parties soxla nañ ko muy benn défaillance boo xamante ni amul benn yoon boo xamante ni mën na résoudre lépp loo xamante ni daal état war na ci sukkandiku ginnaaw ki nga xamante ni mooy layika bi daal dinañu tontu premier ministre bi moom Thierno Alassane Sall moom it ñëw na nee na ni mu xalaatee noonu la sénégalais yu bare daal di xalaatee donc lu ñu waroon jiital maanaam ci vacances scolaires yi ñu initier si lii di dialogue ñu toog waxtaane ko ba trouver consensus moo gën ñuy jaay ay imposé wala di jaay doole ci li nga xamante ni suba mën na indi daal ay conséquences yu néfastes jëmale ko daal ci cohésion sociale